amatuñ dara bagage dem bek dik baangi jafé jafe bo sarse tay dan fay tuyanti dalasi fimne mu fay témir téeméer ak fuk nga wut bagage bo xamné bi mu ngi dan jar témir tay nga diko ko djunné ta te xaliss boko jëndé ko jëndee lu ko gën a lu gën a métti ak metti lu mu melul tey boobu ak lu mu melul tey moom dafay dafay différent time bi wax dëgg yàlla liggéey mi la la ak moom fi mu nekk nii fépp la du fii rek adduna bi yëpp la wër waaye nag ñu ngi sant yàlla ba baax comme que léegi ñu ngi xëy di ñëw marché di liggéey ba juróom-benni waxtu ñuy boobu yëpp sant yàlla la tolloon foo xam ne fii dañu aayoon complètement kenn du ñeme ñu ñëw marché. danoo sonn mu ñuy dem ci lu may dañuy sonn marché bi yenn saa yi dañuy sonn kon nag nan ñu jàppale dimbali nu yërëm ñu ay jigéen lañu waaw lu génn it ñu jàpp ñu man cee am waaw. coronavirus yàlla ñu ci musal nañ ñaan yàlla yàlla musal ñu ci rek ah boo fu ne soo seetee marché bi ak féere bi ak garage yi ak office yëpp soo ko seetee euh, coronavirus moom ñëw na ne ñëw na musiba bu wàcc la rek yàlla na ko yàlla jeexal waaw yàlla nañ bokk ci ñu ko fàttaliku daal ci daraja alquran Moussa Niang El Hadj Moussa Farafeñe. corona bi ñëw dañ am jafe-jafe yoo xam ne bi ko saf ñun ñu amee like transport bi su nekk nit yaa ngi yaa di tukki di ñëw ñun foofu lañ dee am ba su nekk nit yaa ngi stop ñun dañ dee a am dara.